barkàlla sam xel di daal foofu la nu waxee waaye waxuñu kenn waxuñu kenn koo xam ne gi da ngaa télé mbaa da nga génne laa de say kër ko sax nag foofu moom waxewun fa moom dëgg la dëgg la alaaji dëgg la alaaji macha allah yàgg fi te wér hmm. namoon naa la lool lool lool alaaji tey moom tey moom li nga gis ne moom yaa ko tey waaw xam nga da ngaa dem mami ma Mali man ma dem xaay. <laughs> nga dem fan xaay soriwuma la <laughs> xam nga gees yi wolof da koo wax. Ah. waaye dañoo bàyyi wax ba. ah ma defoon yàlla en tout cas daal namoon naa la dañoo nu mu tudd lay jógee de. waaw waaye gees neer dañoo bàyyi tur wa. Ah. moo tax soxna dégg ngeen olof yombul. Ah. tuddul noonu. ci olof. geesu li lay dàq te bu la jotee am njëriñ. <laughs>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 فتبارك الله ما شاء الله دي نيمكو بو باخا باخ مالاتي واي ديلو ريك دي نيان بو بيغا خامني موم ريك موي دكتور بو ماك بي موم يا ربي يالنا ني سافرال واي تاميت سافرال لين بيب خيتو جانغرو بو نوبو اك بو فين تي بارك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبارك الله ما شاء الله ني اند باتاي اك يين دغ نك تي بريزون يي نيمكو بو باخا باخ نيغا خامني نيوم لا تيابي فيتي غناو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 نقر ولا دال dañ koy séddale ay nar ku ne gàddu benn la si def dee woyof ci yow dëgg la dëgg la alaaji moom ñëpp la amal jàmm dëgg la xadi wallaay xadi wallaay am na yar am nay teggin woyof na wallaay ndeysaan bu ñëwee fii da nga yaakaar ne ñi muy liggéeyandool tool sax supérieur leen wallaay wallaay euh, day marché wallaay wallaay ndeysaan daanaka kon li ko dal wallaay yal na sarax yàgg ci loxoom dëgg la dëgg la waaye ku dëkkul it ndeysaan moog moo bokk naqare dëgg la dëgg la alaaji dëgg la ndeysaan ku mañang di ko jaale tamit waa Sonatel yëpp ndax Sonatel Cheikh Anta la nekkoon alaaji di ko jaale borom këram oh. di ko jaale gorom ajaratu xadi juuri borom kër këram ñëpp ñu ngi leen di ko jàll fa la macha allah ànd ak ñoom naqar wi fa la macha allah alaaji di nag euh, sargal ak di ziar bu baax a baax way jur bu seen way jur wu jigéen mu soxna Xadi Ñang fa la macha allah waaye àddina nii la demal maa ngi ñëw kon soxna Kumba Ñang moom yal na ko yàlla yéegee ci àjjana yu gën a kawe ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax àddina bi demal maa ngi ñëw rekk la alaaji nag fa tabaarakalla macha allah xam ngeen dañ nekk ci tem dañ jamono ju nekk la cay xew alaaji ñu ngi dëgmal loo xamante ne dañu ñaan buur bi yegg ceeg bisimilah rahmaani rahim waaye yeggale koog alhamdulilah bil alamin la dëgmal koog bisimilah rahmaani rahim waaye yeggale koog alhamdulilah bil alamin mu di lan mu di tabaski di feet bu rëy alaaji di feetu jullit yi woo xamante ne fa tabarakallah macha allah feetug jàmm la feetug lislaam feetug yokkute feetug feetug zaayiran wa waatinan boo xam ne alaaji nag benn fitna waru cee juddu moo tax rek ñu fas yéene toog waxtaan gunge leen ba ñu tabaski waaye tamit nag fa tabakalla macha allah saafonteeg yéen ba nga xam ne benn benn maanaam ba nga xam ne benn benn ba déggul feet wi te bëgg ci yëkkati fitna ci diggante ay way dencante ñu bakk allah ji lii de mooy waxtaan wi ndax nag bëgguñu benn yoon fitna yëkkati. waaw xam nga ne déggan turu feet. waaw. damay bëgg nit ñi toujours. Hmm. Euh, maa gën a ñàkk xam-xam. dëgg la waaye dama bëgg nit ñi toujours du këlkin bisu feet. dëgg la lu mu lu mu wund. dëgg la ak lu ko tax a jóg. dëgg la boo déggee ñu naa feet mooy bànneex juboo dëgg la ànd doon benn def loo man ba léegi doo tiit dara mooy feet dëgg la laaj mooy noppalul nag war a jariñu dëgg la laaj njariñ nag bu ci fitna duggee feet amatul dëgg la feet nag ak feetu daa bokkul seex ak feet daa bokkul dëgg kon feet gi ñu fa yéene sunu borom jagleel na ko nu dëgmal ko. yal yàlla yu boog jàmm ndax fii nu toll am na ñu jëndum tabaski te duñ ko tabaski. dëgg la Alaaji. barke Serigne Touba. dëgg la këlkin. wallaay wallaay Alaaji nga xam ne nga ne. am na nañu ah, am na nañu yeew xatt duñ ci tabaski waaye alaaji sama baay bu baax ba noonu la defoon de kay bàyyi wallaay nga xam ni kenn rek rek wallaay wallaay ci bésu tabaski la woon kenn rek moo yor moo man dëgg la mooy kilifa dëgg la mooy joxe dëgg la moo yor capital bu dul jeex muy sunu borom wallaay alaaji wallaay lu ci waaye am lu mu tuut sant sa borom ndax am na ku dem te moo la gën dëgg la alaaji kon nañu ànd jar ak teggin ak def lu nu man dëgg la yéenente jàmm ko tali di te yàlla rek tax wallaay wallaay allah ndax yàlla mi la jox bu la toppoon du la jox wallaay wallaay wallaay ndax dégloo ko tax mu jox la yërmande ma rëy nga fekk ko nag loolu laa naa njàmbat loo fekke dindi loo defal wallaay alaaji kon nañu góorgóorlu ba ko tali nit dimbali te sunu borom nag tax dëgg la kii joxe du fi jóg te du jeex yow mi jox nag di nga jeex la jeex. wallaay wallaay ndeysaan kon nañu amaat yërmande tey defaat lu nu man dëgg la te lu waay yeew. dëgg la te mu ëpp sa kër. wallaay geesul ki nga tane dimbali ko te suñu borom. wallaay wallaay allah ji foofu la nu waxee dëgg la. léeg-léeg nga dem ci tëli bi. dëgg la ab 404 romb la yor ak kees di dem. wallaay wallaay. bàyyi njabootam. wallaay ndeysaan. yoonum xaram. wallaay ndeysaan te gënoo ko. wallaay ndeysaan kon naram la jëli foo jaal jëli sam. wallaay wallaay ndeysaan kon nañ am xel ak tey. ndeysaan bàyyi suñu bopp yàlla. dëgg la dëgg la alaaji macha allah li nga wax am na solo lool alaaji lii rek war na tax ku nekk delloo si xel yi xam ne yee fit na waru ko alaaji fa tabaakalaa li nga wax daf ma yóbbu fa sori ndax dëkk mal ah. yeew xar te doo doo ca tabaskee loolu ku ko dundul xamoo ko alaaji ñu dellu sant yàlla bu baax a baax julliwaat ci sangu-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne daal fa tabaakalaa macha allah li ñu namm ñun ci kàttanu yàlla mooy néeki defaru ndax dañu jàpp ni néeg yi su defaroo ëtt yi defaru ñu jàpp ni ëtt yi su defaroo mbedd mi defaru fa la macha allah defaru boobu nag la ñu bëgg ba lépp loo xamante ne mën nañ koy suñu borom bi jox ñu ci ndam ndax kat fa tabakalla macha allah lii suñ ko yëkkatee rek defaru moo tax kon defaru boobu yàlla nañ ko séentu te defaru ci ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam alaaji xanaa tijji téléphone yi jox leen téléphone yi dellu nag dem seetaan li nga xamante ne ne moo di euh, page publicitaire waaye fàttaliku rek ne képp koo xam ne bëgg na dugg ci émission bi waxtan ci dëgmal tabaski bi waxtan ci jikko yi xam 88 628 22 22 la soy Sénégal 88 628 22 22 Soy woote bitim réew nga def 00 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 kon Aladji, nañ dem sétane euh, and ba ak suñu partenaire best xam nga tay moñu gungé gunge ah, best waaw ñëw na ànd ak ñun ah ak oignon molde yooyu yëpp ay partenaire lañu ndax jamono ju nekkeek ah li ciy xew xam nga ni soble moom molde Hollande ca gën nañu ànd dem léegi ànd ak suñuy partenaire dellu si léegi ci kàttun yàlla àllaaji waxtaan nag ak askan wi colar ventoso Mm-hmm.

code boobu bi parce que dañu wax ne cinq minutes rek la war a fóot voilà teg ko suñ koy waaj a envoyé ko sa tool te ñu xaar suñu ndox mi tàng. musukendolwo kaleno mara musukendolwo kaleno fële nga koy def précuit après nga àggale ko mais sinon boo ko defee ba mu ñor nga bàyyi tàngalaat ko day dëgër boo mieux nga def ko précuit teg ko à côté soo demee bay waaj a dressé nga tegaat ko comme ça du. desee code gox bi ak régime bi maanaam ñaari accompagnement la bële haricot vert la haricot sauté bi légume baax la donc léegi dañ koy dressé donc commencé ñu code gox bi ñoom la ba pare léegi dañuy dressé

ah naa de palaat bi baax na ndekki suba teel de Alaaji baax na añ baax na réer. waaw hmm. ah, nu de xam nga ma ñëwagun ko doon xam lu ci xew. waaye ah, daal lu dul waaye lépp laa sa na gis gis bi de moom. Ah. dal na xel de. ah man de dëgg dëgg macha allah. dal na xel de. ah. <laughs> Alaaji Fatou Bakalla macha allah di remercier encore une suñu partenaires yi ba tey ci spécial tabaski bi ñu ànd ak yéen ñu ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew xam nga Alaaji sànq da nga ma lu am solo. ndax euh, danga wax loo xamante ne daa nekk suñ ko toppee dina tax kër yëpp defaru ndax xaar ba feet ñëw wala ba ñu dëgmal feet yow mii nga xamante ne nekk yaay soxna si wala boog yow mi nga xamante ne yow yaay kilifa gi nga yee fitna sa kër alaaji dara jaru ko te feet bi lu ñu wax ne amaana ñu reyee xar bi rek feet bi paase. bëri na fi nag ana alaaji ñenn ñoo xamante ne semaine dernière bi ñu commencé thème bi ba léegi dafa tax lu ñu jàppoon rek bàyyi nañ ko ndax loo xamante ne ne que benn fan la alaaji nga war a tax nga def naka sa dul ba am li nga xamante ne moo di xar def naka sa dul noonu alaaji ba lijjanti li nga xam ne moo di gañilaa wala ges ne def naka sa dul noonu alaaji ba yeew ba def loolu nee naa la soo toogee ba dugg sa ruq mën a kan ba feet bi passé alaaji defe naa ni daal di nga xam ne ne que àddina bi dara jogul li nga xamante ne loolu nga do doon lijjante say xar ak say kii. di ngeen daal nit lu ñu jikkoom fet mënu ko jox. dëgg la boo wax moom ànd ànduma ci ñi nga xam euh, day seen jikko nag moom. dëgg la ku feet tax nga def. dëgg tax nga mën a feetu. dëgg la yoon. damay agressé ndax tabaski jot bu feet waaw nga def loola. dëgg la. ñi yor jikko ju rafet feet jaaxalu leen. dëgg la laaj. jikko ak deret ak sàmm sa ngor moo man feet. dëgg la laaj. di nga feet feetu boo dee ak sunu borom du la jéppi. la laaj waye dama ni ku sëb say tas ngir feet gi nu mm. dëgmal mm. préparé won nga pour fay deug la waye feet gi taxul deug la allah ci ku defe dulu nonu ngir gani la deug la ci nga dekkon deug la da fess deug la ku xef sam xar birna ma ni mm. bo topé sak càlla la am nañ si munte yeewal seenum xar deug la nit day set. deug la li olof di wax ni yap ba lambal sam kang deug la ci jigeen ñi nañu supp ko wat melni mel ni mag ñu jëkk ñi bu ñu am luy supp ko deug la góor ñi nañu góorgóorlu te fonk li yàlla jox te bañ leen a négliger. dëgg la buñ ko defee société day am te pertement du am moo taxoon kër gi jóg. dëgg la kon feet ku mu tax goree hmm. yaa xam muy góor di jigéen. Hmm. danga ci laa fekkoon. jigéen nag la ko jig. dëgg la li jig góor jigul jigéen. dëgg la Alaaji góor gu waat bu baax. dëgg la. waxuma doom. Hmm. waaye heure boo xasee nit ci ak buum. buum gu yàlla jël ni la yeewal mu dëgër. maa yor cat la. maa lay sàmm. Mm. moomatoo sa bopp. dëgg la te jigéen banque la. dëgg la laaj fi la lar saa di fanaan. dëgg la waaye dañ koy garde dëgg la laaj. nit bu demee ba dégg alxëyri na mm. moytu. Mm. bu ko dara tax mu sëpp ko. dëgg la laaj. feet day weesu. dëgg la soo góor góorgóorloo nag bu loola sa jëkkër jox mu doy la te nga yem ci moom képp. bu ëllëgee di nga jullu lay feetal te du la wëtëgee. alaaji xam nga góor ñu bëri nelawatuñu nag suñuy waxati dëgg ndax barki démboo Njaay la ñu jóge ci korité korité bi guñu ci sax alaaji ak li nga xam moy charge wër ak wër ni djégé loyer war la alaaji courant war la électricité war la téléphone war la dundu war la ah leneen ak leneen war la ñu pare ci Korité deug ma li nga xam ne ubité école mu metti lool inscription fourniture alaaji xottil xale yi ñi ñëwoon vacances ci kër yi ñibbi loolu yépp nekk ci benn mbagg ñu tok touti pare ci ouverture des classes alaaji wana wanaa sooguñu ko sax tabaski ñëw dama la bëgg wax ne góor ñu bëri ñalawatuñu mu am nag lenn loo xamante ne yóbbante la ndax dafa am benn waay boo xamante ne nekk dama ko gis ci weekend bi mu ne ma man sama kaasax sax dama bëgg ngeen biral ko ma ne ko lu tax mu ne man sama soxna su doon moom kese duma sonn waaye sama goro moo ne ci gannaaw nee na xale laa takk waaye yaay ji da koy oo ne ko xam nga lu ma lay yëgal na nga fexe ba sa jëkkër yeewal la li ñuy yeewal say moroom surnaturel la xew na nga fexe ba sa jëkë jox la li ñuy def say morom na nga fexe ba sa jëkë xoti la li ñuy xotal say morom néna su ko défé mom su fekente ne ne ko gorom ñëw na kërëm wala xale bi génn na dem ci yaayam néna mom moom daal su liggéey ba ñëw dina xam na xale bi yaaji téléphoné na ko wala wax nañu néna na ndax xale bi ni muy comporté wu nee na nag daf ci nee na sama kaa xëy na man naa la toog sañ wax di li may dund waaye bëri na góor ñoo xamante ne seen kër su tasee goro yee ko tas loolu nag dañu ko daan dégg ci ñun ñi jigéen ñi di jooy suñu goro maanaam ñañu euh, jural suñu ay borom kër waaye ndekete yoo am na ay góor yoo xam ne ñu ngi jooy ci ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jural seen soxna. waaw xam nga soxna Dégane Kocc Barma bi doom ji méttee am soxna ni ko kaay ma takkal la. Mm. da ko ni wutal fukki. doom ak ñaar hmm. may fukki bant ak ñaar hmm. bu nu añee nan yoote ba ñu añee woo ko ñuy yoote mu nu ko doom doxal mu nu ko bàyyi doxal hmm. mu nu ko doom jabar doom ju ne ko bàyyi goro mu nu ko lu waral goro mu nu ko fay léegi bu jubee doo sonn jërëjëf déggoo wax bi de dégg naa ko sooy takk takkal goro seetal goro soxna dégg dama la ni am nañu ko takk seen kër di nga sonn di nga sonn le dëgg la ñu la sonal teg ci. dëgg la du fi jeex. bari na dëgg la. loolu muy proposé doomam. Mm. boo ko seetee dëgg moom la daan propose bu njëkk. moo tax man njëkk ñi dama laa toujours ni la. maanaam moom la daan proposé boobu. waaw man njëkk ña dañ daan tànn li may wax toujours. du fi jóg dañ daan tànn maanaam condition yi mu doon teg yi muy tegal doomam. nekk moo ko jëlee waaw waaw. waaw dama bëgg nga toj ko loolu. bañ a toj allo. waa yii. waaw soxna si. da na dégg. waaw. namu naa la. walaay walaay maa la gën a namm. ça va bien. sant bu baax. li nga sañse rafet na. ah tuddee naa la ko. maa naa si li nga sañse. tuddeel nag loolu moo tax ma composé woote. ndeysaan ndeysaan. maa ngi nii loo Ndiaye bu baax. maa ngi lay fooy woote fooy fooy woote. maa ngi nii Podor. ndeysaan ñu ngi nuyu waa Podor. ñëpp dinañ ko dégg incha allah jërëjëf waay. dee ma jàllale nag allah. <laughs> tur bi naka la. Maymuna Maymuna. Maymuna soppe ba ne Podor. aywaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay lu ñu wax misal minima. billaay jërëjëf. ok ah, merci. <laughs> ndeysaan jërëjëf. alaaji ba njëkk ñi daawuñu takk. waaw dañ daan takk goro. waaw. waaye daawuñu takk doomi soxna dañ daan takk goro. maanaam ki nga xam ne mooy dund loolu danga ne goroom soo sàgganee noon la daan def. ba waaw saanu. safaan la buy dem day del si bu dee yërmaane nag day indi njëriñ. dëgg la bu kun loo xamul doo ci dëgg la ki sëy te yàlla tax ba am doom ju mat. te mosu sonal ki ko yàlla booleel. Hmm. boo amee doom ba ñu labat ko da koy jaar yoon wa mu jaaroon. dëgg la. waaye na sam xar mat. waaw li ngay teg sa bopp bi na gudd te jot. waaw koy wax sa doom ku ne sonaloon nga kala yoroon. dëgg la. ku sonal ki la yoroon nag boo amee doom fu mu dem sonal. dëgg la ndax da nga koy sonal. waaye Alaaji yow soo yoree soxna su mel noonu. nga xamne ne yaay jay nekk ci ginaaw nopp bi ñu deggal lu mel nii ne na nga fexe bañu yéewal la li ñuy yeew sa morom na nga sét bu baax li mu ne moo waxtaan nga ak sa jëkkër na nga fexe ba bu mu la indil na xol xam nga lu lay wax bu mu la joytu bu mu la joytu góor soko ko mu dem takkal la ku mel ni yow bu mu la joytu xam nga loolu alaaji na nga fexe ba mu takkal la kon ma ngay ma ngay fexe ba xale bi nek sur la défense na la takkal na la solal defal nag ma ku góor ki bu amé ful la waaw na fexe ba def la mu man te fan la may sol mu sol ko ba muy fulla nag laa ndax dama ne ñàkk fayda di waaye dafa mel ni bëgg na soxnaam nag ku bëggul soxnaam sax nag niwu fii ñàkk pexe fi am dëgg la waaye ku bàyyi ñëpp la ba nit sam nga ca dëgg la alaaji boo ko ñàkkee nag pexe la waaye ku bëggul soxna doo ko yor waaye góor ñi dañuy def dafa paye rek ci banque yi après di sonn alaaji yooyu yëpp déggan après dañuy sonn waaw xam nga soxna déggan hmm. nit sax buy def lu mënul ngir yàlla ak sa jëmm hmm. war nga ne tekk nag dimbali ko mu arrière la nan waxtaan ci dëgg. mais ko jaru ko fi dama ne teraanga bu juutoo waxaale wàññi lu du bari. kon waxal xale yi parce que bëri na alaaji xam nga fu mu ne nii bëri na xale yu góor yoo xamante ne fu mu ne ñu ngi dugg ci banque yi di def ay prêt tabaski di jël alaaji ay millions yoo xam ne dañ koy yemale ci bés bi loo xamante ne nekk seen soxna ànd na ci te alaaji tabaski benn bésal su paasee xolal da nga koy fay ay at. nga toog jékki-jékki alaaji loo mënoon mën a toog ko histoire yi bëri dépression yi bëri lool tamit baax na alaaji ñu yëkkati loolu nga wax ak xale góor yi xam nga xale jigéen yi mm. ñi si mën bëriwu ñi am xel bëriwu dañ leen di man li leen wax ci ginnaaw dëgg la xale yu góor yi wax naa leen la labat dégg si ma ñëw tojal ma ko léegi ñoom waaw paquet bi ma la jox daal metti na allo allo asalaamaaleykum waaleykum salaam yaa booy ñu ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay bu baax a baax maa ngi wootee tableau Tivaouane. yaa ngi wootee. tableau Tivaouane kilomètre 15. tableau Tivaouane dëgg la dëgg la. Doudou Ndiaye Doudou Ndiaye ñu ngi nuyuwaat tableau Tivaouane yëpp. après poste Thiaroye. ndeysaan après poste Thiaroye. waaw dañoo woote woon ay ay ndaw lañ euh, doon rafetlu émission bi. ndeysaan. chaque jour ñu ngi koy seetaan. ndeysaan. di di toog Ndiaye yokkal yokkal yokkal baat bi bu baax. waaw rafetlu nañ ko trop. ndeysaan rafetlu nañ ko ay xale lañ. chaque jour dañ koy seet. ndeysaan ay ndaw lañu. ñu ngi wootee defe naa tableau Tivaouane la ma wax de. waaw mën na bala ngaa dem ba caari asil. waaw waaw ne kon fu mu nekk nii Alaaji xale yaa ngi ñuy déglu. te fu mu nekk nii jeune couple yaa ngi ñuy déglu Alaaji couple yu yamama yaa ngi déglu te fu mu ne nii leb bi takka naase na dëkk bi toj na. waaw xam nga dama la labat ñaar la. Hmm. sooy labat ko bañ te bëggu la. nga xam sa tàngoor tubéy mu gën la sa bopp. di nga def nga def loo mënul bu ngoro ga amee si am nag rëccu yam ca ay xool dañuy ànd soppante lu ñu dugg mën koo waxtaane ba juboo ca ba léegi rëccu du ca am. dëgg la allah ji nga lu waaw waaw looloo fi bari. la bari nañ couple boo gis boo leen ne jàq xam ne lii am na lu ko wundu. dëgg la waaye bu jaaroon ci yoon du am. dëgg la allah ji ah xanaa boog lu yàlla tudd lool. dëgg la dëgg la allah ji nit nag boo ko dee labat te sopp la mbaa mu ëpp lay bagage bàyyil te dem. boo boo gis am lu ko waaw sopp la mbaa mu ëpp lay bagage bàyyil te dem ki ngay labat te mu ëpp la bagage wala ki nga takk te ëpp la bagage ngay labat te mu ëpp lay bagage te sopp la mm. boo bëggee xare mm. soo légee pënd dina wuri te doo jàmm noo koy xàmmee kooku noo koy xàmmee muy jigéen heure bu la bëggee yërëm la mm. te góor bu ko jigéen yërëmee dina ko xam muy soxna si nga am ak ki lay labat dëgg la sëriñ bi bu ma tax a mukk nga def loo mënul dëgg la ndax góor ah wallaay wallaay wallaay Ah, sëy li ci gën a doy waar mooy conteneur bu jóge Chine wàcc port nga duwaañ bëgg marchandise su amee ba am nag bénéfice ngay daw dëgg la allah sëy bénéfice waru ci lu doom ju barkeel mooy bénéfice su sëy dëgg la allah dafa am góor ñu nag mm. ni ndaw si ñal fu ma jaar dinaa ko làq sama ginnaaw waaw waaw waaw ak lu ma ak lu ma jaral dëgg la te lam la jaral nekku ci yow ndax jëroo ko dëgg la yoroo ko. dëgg laa laaj boo duggee loo mënul ba am ko nag bu jeexee jabel dugg. tooñoo ndaw la ndaw si tooñu la yaa tooñ sa bopp. kon nañ def. tey tey la alaaji li bëri na problème na te ñu ngi loo xam ne ni nit dina ci dugg loo xamante ne alaaji atub lëmb di nga toog di ko jooy jooy boo xamante ne yow kenn yaay wéet sa nekk kon nañ def pause commerciale <laughs> dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla ba tey rek ci seen émission wareef ci télévision Futur Média kon ñu dem dellu si léegi léegi léegi aju Diop rue 25 la angle 22. <laughs> kontaan nañ ci yow aju Diop cuub alaaji dina la dina ko xam nga tey dama xëy rek bàyyi faal. Ah, waaw waaw aju Diop de moom. aju Diop cuub ay def yi. Ah, waaw xam nga dañoo dëgmal tabaski. Ah, waaw foog cuub yi génn te seet. daa ngi ñëw. <laughs> nañ dem dellu si léegi léegi ci kàttanu yàlla <laughs> kon mbokku téléspectateurs yi kontaan nañu lool am mbégte delu seeg yéen ci seen ñaareelu xaaju euh, émission bi di wareef ba tey ci spécial tabaski waxoon nañ leen nag spécial tabaski dinañ fi invité ay soxna yu ràññeeku ci lu ñuy liggéeyee ay jigéen ñu mun góor ñu ànd ak ñun ci tabaski ndax bu ñu fàtte ni jamono ju nekk ak la cay xew àllaaji te bu ñu fàtte ni jigéen ñi ñooy lu ñuy waxee pilier kanu société àllaaji <laughs> wolof noonu la mu ne jigéen mooy mooy pilier société li téye société waaw mooy kanu. kanu société kon juumuma woon. la ca kaw balaa am doole la ca suuf ron ko. jëf c'est que damaa nekk ak yow léegi olof yu biir yu baax laay wax kon di dalal bu baax a baax a baax madame Sow mami Astou Cissokho ah jóge ba point E Queen Fadima mami astu ñu ngi lay nuyu ah di la dalal jàmm ci télévision Futur Média di la talal dalal jàmm ci émission bi di wareef bisimilah mami astu nuyu la askan bi. waaw maa ngi sant euh, waa Sénégal. Mm-hmm. bu ma jullee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu kilifa diine yëpp mm-hmm. di nuyu samay ñaari waajur bu baax a baax di nuyu sama borom kër mm-hmm. di nuyu bépp àdduna bi. di nuyu Papa Ndiaye Lo Ndiaye. ak euh, Adja Degen. fi nga xam kilifa. Mm-hmm. waaw loolu am na. <laughs> alaaji seetlu nga ni ku fi ñëw rek borom këram lay ñëkk nuyu. <laughs> waaw xam nga tax ma naw leen. Mm. wolof daf ni. Mm. bana ñaar ku fulli ki ku fulliku da nga fàtte la la faloon. la la fal dëgg la laaj. xam nga loolu tas nguurub démb. Mm. génne ko ci bokk taxam xam secret la. dëgg la. dugal ko ci bokkul taxamul dara. dëgg la laaj. Euh, lii tax góor di sawar. Mm. foo toogee ci milieu tudd ko. Mm. mu di ko dégg. man nga yattam. dëgg la déggoo ma de bankal. dëgg la man ngay bank man ngay bankal. man nga yattam. Ah. yëq nga ko mën nga poos ba. Hmm. benn. lëm nga xel ma mi ngi nelaw. yaa ngi bank. boo fëggul du yeewu. jërëjëf yaa ngi ci ñëpp soob defal. dëgg la. domp ci sot la bokk. boo weddee na sax. dëgg la. mami wax na dëgg. dëgg la dafay yàgg a seere seen tur. wallaay wallaay. dem ci jaww ji ba xam soosu lu si ne. dëgg la. yor borom këram fayul boppam. déedéet. ànd ak mbooloo yërëm leen. dëgg la. fa mu fekkoon baax baax fekk ko fa. dëgg la. yàqul boppam ku mu tënee dimbili la. wallaay wallaay ndeysaan. kon damay faral di wax ni société. ndeysaan. dëgg balaa mën a taxaw si maa tooy dëgg la laaj waaye ka ko doon tooyal te bërigu ba soriwu ko bu ndox ma laabee bërigu ba jóg ndeysaan ndeysaan macha allah macha allah mami kon ñu ngi waxtaan ci mbiru tabaski waaw ñu gis ni jamono ji li ñuy bañ sax ñun bi ñu dëgmalee euh, depuis semaine dernière dafa fekk ne fitna yu bëri dañ koy yee ci tabaski bi te benn bës la dëgg la lu rëy la du lu tuuti mhm. ndax loo xamante ne suñu borom bi moo ñu ko jagleel ak na mu wàccee ak na mu dikkee ak lam ñu fànqal ak lam ñu indil waaye dafa ci am ñun ñuy soxna yi fitna yu ñuy yee liggéeyee bëri na fi ñenn ñoo xam ne suñu dëgmalee tabaski dinañ ne nu ma amee xar baax na nu ma ko amee baax na ngay góor di jigéen nga toog di jigéen nga ne ne nu ma solo baax na nu ma amee cheveux baax na nu ma yeewee baax na ba tax ngay dugg ci lu neexul yàlla yee fitna dugg ci loo xam ne ëllëg ak si bi soo tëddee doo nelaw wala boog su euh, tabaski bi paase rek nga xeeb sa bopp loolu baax na ñu waxteeg soxna yi wax ci ak suñu borom kër ma ne waaw soxna dëggeen rek mhm. àdduna nit da ngay def loo mën. dëgg la di digal sa borom kër lu mu mën. dëgg la parce que kër dafa metti comme ni koy waxee toujours. dëgg te ay jàmbaar lañu. la wax dëgg neex yàlla. dëgg la nit nag boo deful loo mën toujours rek da ngay dugg ci problème. dëgg la tabaski bi dëgg la bés bu màgg la. Mhm. mais defal sa farata. Mhm. farata bi mooy nga jënd xar boo mhm. xam ne biñ la la digle. nga def ko. ca boo ko mënee. boo ko mënee. dëgg la. waaw jigéen ñi li ñuy wax nag mhm. mooy bés la boo xam ne tamit bu paree mhm. war nga bégal sa borom kër baalu ko àq loolu c'est très important baalu àq tamit àdduna bi yëpp. dëgg la képp ko sa employé yi. dëgg la sa papa sa yaay. surtout ñooñu. dëgg la nga xam ne dañu sonn si njaboot. dëgg la jaa baalu àq say xarit. dëgg la parce que léeg-léeg nga tooñ leen sax te doo ko xam. dëgg la dëgg say say say mag say rak. képp koo koo gis rek war nga ko baalu àq. àq dafa sew na àq dafa nga def nit dara. te sax doo ko yëg. dëgg la moo tax rek baalante àq dafa baax. dëgg la loolu dafa baax dëgg la indi na paquet bu am solo alaaji dafa daaj sama paquet déet defal naa yaa ngi ci dama dama déedéet dafa dama indi dama indi dafa indi. bu ñu mësaa tabaski ba takkusaan jot lañ yegg ñu baax ca daan. voilà loolu laa la bëgg jox. Mhm. jox ma ko man xam naa la yàgg nañu. <laughs> loolu laa bëgg nga firil ma. ndax dafa indi paketu àq. Mhm. te léeg-léeg ñu topp mu mbaay mi ba nga xamante ne nekk du ñu baalonte àq. dëgg la. xam nga ki nga xamante ne allaaj alaaji dëkkandoo la te dëkkandoo bu njëkk njëkk njëkk njëkk mooy borom kër mm-hmm. dëkkandoo bu njëkk njëkk mooy soxna mm-hmm. waaye dama bëgg alaaji ñi lay déglu xam nga man xam naa li nga li ngay pare mm-hmm. nga wax leen naka la mag ñi doon def ñu note jéeg ju ci nekk note kuy doog a dugg ci néegu sëy ku màndeegul ci néegu sëy ka ca màndi sax alaaji ñu note dëkk ma li nga xamante ne mooy lii ngay waaj a wax ñu defee ko naka lañ daan defee su suñu masaa defarootum guddi waaw ab jeeg da daan jëndum xar dénkaane ko diggante sañ soxna diggante su meer dëgg la xontam dara du manqué dëgg la doom du yëg boroom kër du yëg dëgg la ba ñu subale julli mm. mu bàyyi ba xale yi nelaw di yàndoor mu ne sëriñ bi jógal mu jóg toog mm. mu ne ko xar mii laara yar la woon ngir yàlla ak sa jëmm def naa ko addiya ndeysaan yàlla tax may def nag dëgg la mu yeew ko bët sa xale yi yeewu yem ca xar mi ne bàyyi indil nañu xar bii. dëgg la. jëlee ko ci ci ligne bi nee ko allo. allo. allo salaam. Euh, man la aji. waaw. naa def soxna si. na nga def. maa fi tonton Ndiaye Lo laa soxla woon. kay euh, doom sama doom man la aji. France. waaw. Ah, doom waay. <laughs> dama laa gëj dégg. maa ngi jàmm tata Dige naa la. yàlla na jàmm ji yokku man dama lay jox sa papa ndax xam naa ne moom rek nga <laughs> yàlla na jàmm ji yokku. ndeysaan. te dama bëgg dama soxla numéro bi. Ah, waaw na la ko laasana jox rek daf ko soxla léegi daf ko soxla léegi. ana sëñ bi. sëñ bi liggéeyi na. waaw góor yàlla na wàcc jàmm ba yaa ngi koy teeru. waaw maa ngi koy teeru tey. naa la digalaat ñett ya ma digaloon. waaw. ndox mu sedd bi bu mu la sori buy bëgg a wàcc. dëgg la kay. torsion bi ngay foppe tànk yi bu mu la sori. waaw waaw. te booy joxe ndox na nga sukk bala ngaa jóg na màndi. bu li neexul waa li neexul. bul këpp bul këppee bul këppee laa sama jox. alaaji hmm. da waxoon nga dëgmal ci àq bi ak defante lu baax bi. bu ñu demee nag xare yi. Hmm. ba noppi. mami dégg nga déggal fii de. xam naa sax ba togg ba noppi. ba xel yépp nag dal. Mm-hmm. Mm-hmm. mboolem kër yi dend. Mm-hmm. yépp yegg dañuy sañse. Mm. ñu dal sëri dënk. Mm. kenn ku ci ne. Mm. sab sëriñ sañse tëdd ci piliyaanam mbab seesam xale yi toog wër la jéeg gi ne ci koñ bi ñëw di la arbité mm. boo fa jógee da dem arbité ji mm. mu raam ba ñëw ba ci sëriñ bi kon dangay lal sëru dënk bi lal sëri dënk mu mu jëm sa kanam borom maa la ko wax nga tàmbalee raam nga raam ba egg ko sëriñ bi jéggal ma baal baal ma ak baal ma ak lu ma yëg ak lu ma yëg lu ma yëg ak lu ma yëg jëf ndax sëy dafa métti te dëkkandoo ci raw surtout benn lal dëgg la loola ma sa def te ma yëg ko. dëgg la baal ma ko yëgul baal ma dëgg la bés bii maa nga li si jéggaluwaat ba ñii ma am. barkeel bu ba ëllëgee ñu mën naa defal lii. dëgg la alaaji stop taxawal nga jëwaat gis nga gis nga mami fii laa bëggoon alaaji génne. da xam nga dafa lenn loo xamante ne buñ ko di rëy def. dëgg la dañuy dëgg ma da génnee paquetu àq boo xam ne dama ko téye woon nga ñëw rek génn foofu ma kontaan. Mhm. dama bëgg. lii àllaaji wax nañ ci bàyyi xel ndax xam nga sëy li koy defar lu ndaw la waaye tamit li koy yàqat lu ndaw la dëgg la ñuy dëgmal lu ne may jeeg ju ci ne yow nga sëru dënk sa armoire su fekkente ne amoo ko sax nga jëndi ko ñu dëgmal lu mel nii àllaaji xam nga lan moo gën a neex sa borom kër rëy xar nga wàjj ba si yàgg jékki-jékki dem su ñi ko ñëw rek lal sa sëru dënk su génnee gis ko lan la nga raam ba ci moom ne ko àllaaji papa mon trésor noo oowee baax na baal ma àq mm-hmm. àq xam nga loolu dafay tax loo am mu barke loo amagul suñu borom bi noté xam ne kii fa tabaarakalla macha allah jigéenu uuru ay ni la lii paquet bi la allah ji ñëw ma bëgg nga commenté ko ñu dellu tegit góor ñi ko daan def nag hmm. déglul ñañ ko daan def nag it hmm. dañ daan am ak soxna hmm. te ñu jaroon ko te daan dëgëñ dëgg la te daan jéggale dëgg la tey muñ ngir bis nag dañ ko daan defal kon dafa am qualité góor buñ ko war a defal waaw parce que nag am na ñoo koy waxuma tappi waxuma sérub rabal waaw ndax seeru rabal juróom-ñaar fukki wëñ la. waxuloo ndëstën waxuma it ndëstën. waxuloo basal am na ñoo xam ne ñii. mérité wuñ waxuma sax percal mbaa melikaan waaye ëpp na ci ñoom di ko laal. jërëjëf ndax xamuñu gëdd ka ñu dëgg la ma fi <laughs> ci sa xalaat. dëggeen chimère damay kontaan ci li Papa loo wax. dëgg la. ndax euh, benn rek laa ci deful woon xëy na mooy sukk bi. te dinaa ko def ren. dëgg la. ndax sama borom kër. Mhm. su may wax si moom tey duma fi jógee. dëgg àdduna xam na li may wax. dëgg la sama xol day tooy sax. dëgg la dëgg la dëgg bàyyi lu ñu dara. dëgg la damay tabaski bu ne. Mhm. mi ngi may dégg. dëgg la dinaa ko lala sër. Mhm. ko gërëm fàttali ko. Mhm. avant tabaski. li muy def si biir kër gi. ndax dafa baax. dëgg la góor ñii léeg-léeg baax na nga wax leen. dëgg la li ñuy def ndax ñu gën a yokk. dëgg la dëgg la. ndax ñu gën a yokk. dëgg la lu ñu wax làmbali fas. du tax yàpp fas waye dañu bëgg nak kël ya neex xam nga ci jërëjëf ci liñu allo <laughs> dem oh. mami yaa ngi won fu neex waaw hmm. dina koy gërëm hmm. dama chaque fet tabaski korité bu ne deug la dina ko sargal deug la deug daf ko jaar. deug la deug la. Euh, tapi or nak suma ko amone sax def ko. deug la deug la tapi ngalam, <laughs> waaw waaw waaw wax deug na yàlla su ma ko amone def ko. wala alaaji daane la na fu am maanaa tam ndax neena lu ñu bëgg-bëgg def am na ay qualité góor yoo xamante ne jaruñoo defal dara. dëgg la loolu ci sa xalaat. waaw gis nga góor mën nga nekk ak moom sax mu bon mu baax. Mm-hmm. nga tax mu baax. Mm-hmm. parce que góor li ñuy wax toujours rek. Mm-hmm. Euh, comme xar. da ngay xam rek noo koy kii vers le sens du poil. ni ko tubaab di waxee. noo naxantee ak moom rek am ko. te mën na ñëw sax tàng. Mhm. yow nga am noo waxeek ak moom mu wàcc. dëgg la loolu c'est très important. il faut ñuy xam loolu. parce que tamit des fois dañuy jóge seen liggéey. am fa ay stress am métti xalaat kër gi ak yooy yëpp yooyu yëpp dafa métti dëgg la yooyu yëpp dafa metti il faut ñu leen di dalal ak yooyu yëpp ci dalam waaw yëpp ci dalam daal dëgg la te tamit ñuy waxtaan tamit ak góor ñi dafa am ñoo xam ne même boo defee lu baax tamit mhm. duñu ko gis am na ñu ñu mën mais loolu mission yi dafa baax. parce que dina leen yee mu bàyyi jonge bi am na góor yoo xam ne loo def. ko gis de xam nga xam nga <laughs> dafa wax bu am solo waaye dama ne. Hmm. ci góor gi xëyee kër. dëgg la ah. te soxnaam mu am indi tàngaay. dëgg la ci ay mbaa climatiseur. Ah. mooy soxna si dëgg la. dëkk loo def tu ko teg bët. ah loolu laa ko wax. ah la bàyyi jonge bi boobu la ñu waxee ah. bu yàggee da bu yàggee. ci fas buy daw. da nga ni làbbali. dëgg la làbbali fas. dama ni soxna si nga jox dépense ak loo bari bari bari wërsëg dina sóor si jindi loo ko joxul. dëgg la dëgg la dëgg la. heure bu yekkee bu doon suba mi ngeen ko bii reer dàq biig bu ëllëgee reer bàyyi dàq ba nga fiim. la dëgg la. alaay saa yi lañu yoon sanateur. Mm-hmm. Euh, ajiratu ak ab mm-hmm. yaay la koy wax. Mm-hmm. man koo tax mu ni bëtt yërmaande la may xool yi ma sama waajur xool. wallaay wallaay saan kon la muy def gis na ko. ndeysaan dëgg la. nit ku baax bu lay jëfal rek ne ko jërëjëf. dëgg la dëgg la moo ko pooj ñëpp la war. dëgg la dëgg la. dafa am ñoo xëy dañuy mokk. day mokk pooj sax. wuyu ma rek ñaar lañu sax. Mm-hmm. góor gu fees gi. Mm. day mokk pooj. Mm. dëgg la waaye borom baatin day mokk pooj ci waxeen ak néeg bu kenn néewul. Mm-hmm. dëgg la mm-hmm. dama la ne am naa doom joo tey ma ngi ci Guinée. Mm. Amadou Ndiaye. aji soxnaam ngom aji ngom soxnaam. dako ni bala maa tëbësi ñu ni suba la mm. waaye lu war a jëfal ndax sam xel doy na ma mm. xam nga dafa am yoo xam ni euh, li nga ni boo amoon tey or di ko lal sa sëriñ bi waaw tappi or tappi or nga wax wallaay wallaay li ko lal ëpp na tappi or or bu yàggee te bërësoo ko mu mm. suppi ko dëgg la waaye jikko su a bees waaye màgg dëgg la macha allah macha allah macha allah <laughs> xam nga alaaji suñu jugee ci diggante dama la wax sànq ne dëkkandoo yi njëkk mooy ki nga xamante ne nekk moom nga bokkoon nekk. Mhm. mooy premier dëkkandoo. Mhm. kon àq boobu buñ ko di fàtte. Mhm. mami jëla ki ci ligne mu nekk allo. aloo allo. allo. allo. waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va na def. jàmm rek alhamdulilah. Ah, waaw taa dëgg. waaw ki. siyaar nañ la. ñu ngi nangu siyaar. Kaolack laa dëkk. ah naka waa Kaolack. ñu ci jàmm. sargal nañu leen. tonton Ndiaye Lo siyaar nañ la. maa ngi lay dellu siyaar. kaanaa la yàlla bàyyi suñu kanam. amiin ñu bokk ñun ñëpp. yàggal la fi. amiin yaa rabbal aalamiin. ah man de damaa bëggoon participer si émission bi. ñëpp ak lay déglu. damaa toog di koy déglu rek mu am inter mu mu amal ma mu amal ma intéresse mu mu mu intéressant quoi mel ni mel ni garaawul xaaral ma oote. Mm-hmm. dëgg naa la yéen ñëpp yàlla na yàlla bàyyi suñu kanam. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. amiin amiin. merci jërëjëf. tey Saad jërëjëf. kontaan nañu nuyu ñu kaw lax laaj li yëpp cofeel la mm-hmm. nit ñaa ngi toog àddina mi ngi déglu mm-hmm. fatabakàlla macha allah te am na ñenn ñoo xamante ne ñu ngi ciy jëlee njëriñ bu bëri bëri bëri mm-hmm. dama la wax sànq ne woy dencante yu njëkk dëkkandoo yu njëkk suñu nee baalante àq ci dëkkandoo dëkkandoo bi ëpp bi njëkk mooy sa borom kër dëgg la moom tamit dëkkandoo bu njëkk mooy yow mi soxnaam dëgg la kon ni nga xam ne noonu la jigéen bi di jógee di def effort baalonte ak du sax effort waaye daal boole ci yëg boole góor gi bu mu am rëyu xam nga bëri na ay soxna yoo xamante ne su mm-hmm. kii jotee ñoom nga ngay dégg nijaay baal ma àq waaye góor gi am na rëyu baalu àq soxnaam ku ne war na sa moroom ah jëlal ko ci liñ ma ñëw dafa sew waaw ma jël ko allo asalaamaaleykum Baye Ndiaye Mbacke Balla sama doom sama xarit gën a yokk soo wér gën a yokk barke sëñ Touba sama xarit ak ngoo yëpp am na solo xam nga tabaski darul benn darul loo xam ne day ñëw rek dootu ñëwaat tabaski dañoo ñëw fekk ko fi waaye dañuy tamit bàyyi ndeysaan ma doom jaagoo ndeysaan ndeysaan dégg nga alaaji am <laughs> na ñoo dañu am rëyu te góor waru koo rëyee baat boobu tamit yomb na te dañ koy jël ndax sa soxna ñëw ne la baal yow nga def nga defe ni moom rek la war te fekk ne alaaji gis nga fii kenn dëkku fi nañuy sédd góor ne taxaw di am mëtu wax soxnaam baal ma àq eh, xam nga dama ne sërub dënk di mu waree góor gu jigéen gi hmm. la góor gi war waree fam hmm. soxna si baal ma àq dafa am loo xam diggante sëriñ ak soxnaam. la war sëñ bi bu ko dee def bu ko doom bi fekkee. waaye bu dee ñoom ñoom ak yàlla na ko dëgmal. te seere ko sunu borom ni ko jéggal ma tabaal ma war na. amul kenn ku nekk ci néeg. muy góor di jigéen ah. at bu doon wenn weer rek. Ah. am nga loo def sa soxna loo xëy dëng na. Ah. am na. dëgg la ah. lu ko wodd tuñ su meree. Euh, tuñ bi. ah ah, ah, ah alaaji bi ma la dégg man maa ngi sauvé mami sax. su meree xam naa ne mami déggul 32 bi. xam ne 32 daan la day ñëpp. waaw su bëggee bañ a feeñ. Hmm. soxna si jéggal ma te xuloo saa bu bañ feeñee léegi mel mi jiif. dëgg la. dëgg ngeen ne ko jéggal naa la waaye sëñ bi dafa loo ma dara lu ma ma naqari. dëgg la am na sax. dëgg la ngeen ne ko ah kay ndax néeg daa xat. dëgg la. muy baat boo xay bi yërmande la dëgg la dëgg la te day nga xasaat ndab li te day nga xasaat day nga xasaat ndab dama la wax toujours ne la mm. gaz dina jeex te du tee ci ndif noppi dëgg la xam nga lu koy noppe la mooy xel mu dal ci ki la yàlla booleel dëgg la dëgg la sëy jëkk yi ak sëy léegi yi daa bokkul mm-hmm. sëy ak sëyantu daa muntaan mm-hmm. bu góor réyee perdal na mm-hmm. bu jigéen réyee perte na jërëjëf Alaaji jërëjëf kon ñëw nañu ci àqu dëkkandoo bu njëkk mooy ay way dencante nañu dem léegi seet li xew ci marché bi mami xam nga ni yow yaa ngi ñaw tey piis yi léegi nañ ñu yomb na ñii ne jëndaguñu nañ dem daal marché HLM doxantu ñëwaat léegi léegi ci kàttanu yàlla ah. Ah. Ah, lu ñuy def lancé na mami jël ko ci ligne bi allo allo oui. soxna si na ngeen def. ñu ngi lay nuyu. mbaa yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah. ndeysaan. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax. sañsa bi rafet. yaa ko dàq yaa ko dàq. maa ngi nuyu Papa Ndiaye Lo. ndeysaan. fooy fooy wootee nii fooy wootee. maa ngi Espagne. waaw yéen yéen xanaa xanaa préparé wu leen tabaski de yéen. waa ñu ngi préparé kay. waaw noo leen di ko defee foofu yéen. ah ñoo ngi préparé comme ni ñu ko daan defee rek. waaw. daal di rey xar yi fas yéene defar ba mu baax daal gis defaral sëñ bi ba mu baax rek. waaye mbaa benn fitna juddu fa daal. déedéet. yow yow yaa tudd nan TFM. ah yow yaay représentante TFM bi foofu. waa sama borom kër waaw Mouhamadou Sow. waaw waaw Mouhamadou mooy jaay carte foofu. waaw waaw carte télévision Futurs Médias yi madame Sow kontaan nañu. ñu ngi lay delloo ziar. kontaan nañu bu baax a baax a baax. maa ngi ziar Papa Ndiaye bu moom foog mu ñëw Espagne moom. <laughs> ñu ngi kii moom ci suñu sëy bu baax di ñu digal lu baax moom wax dëgg yàlla yi mu wax tey ñu bari xamuñu ko woon. waaw waaw ut leen ut leen sëyu dënk yi de. Ah, waaw xale yu ndaw yi moom doo ngay dugg ci sëy xamuñu woon. wallaay foo leen jullee saan ba pare rek lan leen sëyu dënk yi baalu ak. maa la ko wax de. dëgg la dëgg la. wallaay day yokk cofeel. waaw xaaral ma jox la sëñ bi. ndeysaan allo sëñ bi Sow. waaw soxna si. sëñ Mouhamadou. waaw ñoo ngi lay ziar ñu ngi nangu ziar di leen ko delloo. Agasa dañoo bëgg toujours rek parce que waaye bi day jafe waaye comme ñu dañ cee bokk moo duñ da ngeen ci de. <laughs> ngeen ci ah? lool allah. xam nga lu ah. moom maam jaara mii ci kër gi nee na da lay indil ba ah, ma neex. <laughs> na ma maam jaara yow rek lay tooñ daal biraan ko fa woon bàyyi daf ma ko waroon nag. moom mooy xaritu biraan nag moom fu mu toll euh, <laughs> ma ne nga ko dégg nga maam jaara. soxna maa ngi kontaan ci yow. ngi nii doom sama sëriñ. dégg nga soxna maam jaara. Mhm. ndeysaan kontaan nañu allaaj nañ dem pause léegi alaaji mu ngi ci na nga def yal na jëm kanam doom maam jaara borom poroxaan waa léegi ma ne ah waa dañ doon participer wax ne li Baba Ndiaye di wax moom ñun moom lañ nekk fii moom la ñuy digal même suñu mbokk dëkkandoo yi nekk fii parce que Baye Ndiaye la moom sama xaritu papa la. kan mooy sa papa. dem Demba Sow Ndiarème Côte d'Ivoire. Alaaji. def lu baax. <laughs> dégg nga. Marcori. ah. Alaaji Demba Sow Marcori. waaw voilà exact. ak yàgg a dem dama ne. bu Tabaski ma saa jot bu Tabaski ma saa jot ku mu neex nelaw. ndeysaan xamal lo Adja Degene moom suñu wala suñu lépp la. yàgg na ndeysaan ndeysaan jërëjëf Sow da nga bokk ci TFM. mooy xaritu mu Sow. ndeysaan voilà wax nga ko yow baax. ndeysaan ndeysaan <laughs> ma ne. moom ñoo leen di encouragé. di ñaan yàlla guddal fan fan yàggal fi loolu daal. sëñ Sow. waaw. bi soxna si ne xaaral ma jox la sëñ bi. waaw. damaa gën a dégg ndax làmmiñu soxna saa làggee ci gémmiñu jëkkëram da koo waaye ku la jege du la woo. dëgg la jërëjëf. <laughs> jërëjëf Sow ñu ngi nuyu waa Espagne yëpp nag. di sant yàlla bu baax soxna jaar jaariyatu laa nak mom na ngeen mako indil fi nañ dem setan tusi yi way waaye dama deg ne da nga yore luma ma téeméeri xar bu ko saraxe dama dama bëgg gaa ñëw jël ci tay xar yi amna ñuma am dañ waxé ñu saraxe téeméeri xar ha waaw man la dum la bëgg yow lo bëgg dina am soobee yàlla nañ dem léegi delu ci ci kàttanu yàlla nañ dem setan li ci marché bi léegi léegi tabaski bi euh, am na brode coton yu bees yu génn comme brodé finition yi comme genre yi nii quoi waaw benn finition lay am ci suuf jigéen ñi bëgg nañ ko trop waa ñu ngi koy jënd bu baax a baax bi moom prix bi dañuy wàññ daan nañ ko jaay 2000 francs euh, bi tabaski bi euh, semaine bële ci ginnaaw daan nañ ko jaay day ar 2000 francs mais actuellement ñu ngi koy jaay 1500. waaw dañ ko wàññiwaat. ci biir euh, contre Gagnela yi nekkoon ci biir encore boobu dafa nekkoon yu xew fii lay nekkoon ci biir sëñ Babacar Si euh, deux yaar bi ñu ngi ko doon jaayee 5000 maanaam boo ko seetee yaar 2500 lañ ko doon jaay takk na rafet na comme moo Gagnela boo bu fekkente ne mënoo mosoo jaay Gagnela mënoo ko comparer quoi. dama ñëwoon xool léger yi comme dëkk bi dafa métti te damay ñëw couturière la biir marché mënoo. article yi foog nga varié ko ku nekk ak sa doole ni mu tollool rek nga mën koo jaay comme mën nga jaay pan travail yu ànd ak basin yi gañilaay a ak robe gañilaay yi ànd ak gros fil boo ko jaay ay quatre-vingt mille ay cent mille am na ñoo xam ne seen doole tolluwul noonu fi mu ne nii jesner bi xew na bu ñu daami na gros fil wala petit fil wala deux cent 217 pan travail yi tamit xew na léger yi tamit xew na waaw mais su góor jesner bi dox na mun nañ jën tamit léger yu rafet ñëw ko demi saison waaw su daami na ko. instant bi xale jigéen ñuy faral di jënd sandum bi quoi sandum uni bi dañ koy jënd dañuy jënd tamit kii kere bi nii di ko planche quoi waaw dañuy jënd soit tamit boo boole ko ak sandum ko xam nga yaa yaay xool quoi sa couleur bu la neex rek non jën instant moom kenn jëndu dara moom bu fekkee moom dëgg tax ñuy wax rek moom ñu dara quoi day ñëw xool nii rek xam nga lii ñaata waxaale après ñu dem quoi mais ni mu doon doxee moom doxeetu ko moom parce que ko ñu ne dëkk bi dafa dëgër xam nga nu mu demee noonu man loolu looloo ma yëm man parce bu njëkk dañ doon jaay nice client yi di ñëw ñuy jaay mais léegi client yi jëndatuñ dara xam nga da ngay jënd sa bagage doo ko mën a jaay mu tardé si yow indi la ay pertement da ngay mujj di ko wanteer ko kom nii ay mètre ñaar téeméer ay mètre téeméer. waa fii la ci biir bi sëñ si ñett ñee ñëwoon kon euh, ba tey na ñuy kontaan bu baax sànq gis ngeen alaaji xar yi ah léegi nii ba tey lépp ci ambiance tabaski fu mu nekk nii alaaji marché boo dem wanteer baa ngi mel ne tulleeg màlle wanteer baa ngi te man nag xam nga lu dal sama xel alaaji mm-hmm. lu waaye am am mbubb mm-hmm. xam nga ne gis nga tenue xale yi maanaam ni ñu koy owee xaftaan ñaari abdu ñaari yi xale yi soldaal sabadoor yi alaaji waaw deux pièces mm-hmm. mille francs nga am deux pièces waaw xam nga soxna diggéen waaw léegi kenn sonnatul euh, ah xanaa ko soxla sa bopp dëgg la dama ne ku sonal sa bopp waaye sunu borom wàccu nan dëgg la dëgg la alaaji li am amuloon bu jëkk wallaay wallaay ñaw ba mu baax ba mu loon bu jëkk am deux pièces say doom ñëpp solo euh, ñu ngi toll mille francs mille francs mille gis nga sama doon xar yi ngay gis ak yére yi ñuy wane ak yëpp sunu borom ma bëgg senegal dëgg la mhm. te noppal Sénégal ñu bëgg nag fitnaal seen bopp sonal seen bopp dëgg la alaaji dama la ne ki dem ase leen jënd. ci hmm. li nga wax 1000 francs 1000 francs ki fanaan ci teer yi di jooy bu bët set. Ah. bu ñu dajee ci biir jàkk ji doo xam teer bu ko. dëgg jërëjëf moom daal tout complet complet li ñu naan complet xale yi. sabado alaaj bi 1300 1000 francs waaw xam nga xam nga diggante euh, li ñu dëgmal. Hmm. bis la boo xam ne bii nañ ci bàyyi yet yett. Hmm. di nga ci am koo noonu loon. dëgg bis bi suppi leen ba defar leen xol yi doon benn. dëgg la alaaji bankal dëgg la ah mami mooy banque man su ma amee gan du ma bank xam nga bu ko ñaaree la. ah mami da nga wax mhm. benn. man nga cee am sa digganteeg sa soxna yàqoon nga defar ko ci yéen ñaar bi kenn du ko fekk ba ba léegi kenn du la arbité. yaa ngi ci ñaar bankal. Mm. dëkkandoo nag. Mm. Mhm. kenn ku ne boo fanaanoon àll mu garde sa kër ci teraanga joo ko jiyal bu jutoo waxaale wàññul kersa dafay jaar. maa yaa ngi ci ñaata man muy ñett. ñett waaw ba ko ñeenteel nag mooy. xale yi seen sedd bu ñu nelawee dañuy yàndoor ndax diggante baay ak ndey bu ca pofee ba ay bëñ feeñ sa xam nañu xuloo du am. yaa ngi ci ñaata. ñeent jërëjëf alaaji yi nii lay demee. <laughs> ay façonam la yaa ngi dégg ay façonam la man nag man su ma may gan dootuma mm-hmm. bàggati mais. dëgg la balaa temps bi di jeex dama waxoon dëkkandoo te ñu commencé. ci néeg. Mm-hmm. xam nga ni suñu génnee ci néeg ci ëtt la ñuy dem mami. Mm-hmm. dëkkandoo gi nga xam ne yéen a bokk ëtt bi. mën na nekk locataire bi. nga xamante ne am na ñenn ñoo xamante ne ne euh, ëtt bi la ñu bokk. Mm-hmm. ñooñu tamit ci lii nga xam ne ñooñu dëgmal ak waru ci. Mm-hmm. te bëri na fi ay allaaji këru location yoo xamante ne locataires yi ñu ngay jëlante jaasi di tamante di defante yu bon di waxante di tibbantey tànk kon man pour man gis nga yow alaaji. alaaji mm-hmm. suñu borom beneen affaire la. ndax nee naa loo rëy rëy rëy ak loo mëtadi mëtadi mëtadi jox na la ay ay occasion ci at mi yoo xamante ne ne di nga ñëw ko noonu loon jox ko loxo ne ko baal ma àq. dëgg la xam nga nag man nag ñii naa toob toob ka nga xam ne moom moo njëkk jël initiative ngeen tongoo mu ñëw ne la baal ma àq kooku tuyaaba bi mu am kenn xamul lu mu day. dëgg la kon occasion deferu la. kon bu ñu xeeb deferu bi ci diggante ay dëkkandoo ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ëtt bi mu di diggante ay locataire mames waaw euh, soxna Degene bu ñuy wax ci dëkkandoo man euh, sama borom fi may sëy yàlla dafa def ñoom ñëpp bokk seen papa moo dëkk foofu sanc fa ñoom ñi bokk ndey ak baay rek même ñi bokk baay dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay dara ñaaw fa ñuy séq jàmm mhm. kon lu ñaaw mënu fa am man ma sëy si foofu kon ma ñoom ñu jàppe ma comme seeni sœur man duma fa sax jabar dañuy wax sax sama jëkkër moo fay jàmbur waaw sama goro yàlla na ko yàlla yërëm amiin amiin mën naa ne jaratul du moo man a am dara lu ma naqari sax dem sama yaay. macha allah mooy faj lépp. macha mooy faj lépp. macha allah Aïda Ba kon loolu lii nga xam ne li ñuy séntu. waaw waaw waaw kon man dinaa xaw a am tuuti euh, jafe-jafe. Mm-hmm. Euh, xam li nit yi di dëkk ak dëkkandoo fi ma fi ma juddoo nag fi ma màggee ñu ni tamit. Mm-hmm. dañuy judd màgg. Mm-hmm. fa la fa sama liggéeyukaay nekk. mais ñun ñëpp famille ñu doo xam sax ñi kër mën nga dugg kër gi lekk fa. wala nga dugg kër gi kon. famille la ñu daal mën naa wax loolu yow yow yow li may wax xam nga si dara waaw ñun ñun ñun ñëpp famille la ñu daal dëgg la ñoo lu jar a bàyyi xel waaw waaw waaw ay famille la ñu waaw alaaji ki nga xamante ne nekk mm-hmm. mu ngi dund nekk locataire fenn mm-hmm. takk néeg takk appartement takk nàngam ak ñi nga mm-hmm. xamante ne nekk noonoo nañu ñuy dëgmal bés bu day nii lan nga leen di wax xam nga ne sama déggan turu locataire laay bañ a dégg adina ba addi ndaj ko gis mu genn auto bo meuna yor ci adina locataire nga. dëgg la kër benn la muy bammel te di nga génn sa bir keur dug ci keur gi nga mom dëgg la ñëpp locataire lañu. dëgg la dama ne sixième étage ba dix. bo fa faato da ngay lejeul rek ñu lay wàcc fo jaar ñu sonn. deug la locataire ñepp locataire lañu. deug la fo nek da ngay fay. waye keur genn la muy armel ya di bammel dëgg la foo jaar di nga ca dem. xam nga lu am solo. juboo ak say dëkkandoo. dëkkandoo mooy kee fas a nga nekk ak moom. sa waajur sori la. ba liggéey lu xew sa kër moo fay jiitu. dëgg la yéen joxante jàmm ndax koo xam ne kii tu raxasu jiñ la. booy xëy mu xëy. dëgg la xamul sab lan nu mu mel. dëgg moom te yàlla tax yomb na. dëgg dëkkandoo nag dëkkandoo. Mm. ki nga dëkkal la. te xamoo kañ ngeen di tàggoo. waaye alaaji noonu bi takka naa sana. du jeex li koy indi ah. maa wax ah. li ko indi. li ko indi. xam nga lu ko indi waaw. xeebante. Mhm. koo dëkkal part appartement. Mhm. mu yor oto jëkkëram. Mhm. yow ngay dëkk ci karapin mbaa kaar yi. mbaa mu mën lu sa jëkkër mënul. su gàttee xel yab la. dëgg la dëgg boo yebee bañkat nag. te doo raxasu ba jëñ ko mu lànk. te kenn jara sant mooy kii joxe bi dépasse doo raxasu jëñ ko mu yàlla. dëgg la ji dëgg la ba gis nga. boo amee fuloon nag bu gis bi jotee. Hmm. Hmm. yàlla na teeg mu bañ laa nuyu. Hmm. dëgg jox ko loxo ne ko baal ma ak. baal ma ak bul am réyu baal ma ak bul am réyu bul am googu réyu waaw dëgg la. su ko defee yow sa jaan wàcc na. yàlla wàcc na la am nga tuyaaba. dëgg la te taxit mu yab la. dëgg la soo soxna dégg dama ni. nit dina sànce def yaram mu neen. dëgg nit lëkkaayu tas réew mi ndax sànce. dëgg la dëgg la jikkoo compte. dëgg la. te koo dëkkal te mun leen juboo. dëgg la bu dee si jikkoom topp yow si jikko. dëgg la ndax diggante jëkkër ak jabar laa wax ne la. Mm. ñaari kaadar bu jëkk dañ ni mënuñoo woon a ànd. Mm. waaye kenn ku ci ne. Mm. boo seetee si jikko ji ma yor te muy ju rafet. sa soxna yoru ci muy jikko jeneen. dama wax wax bu am solo daf ni góor. jigéen dina ko weññi. dëgg la. bu dee góor nag laa wax dëgg te xam li mu bëgg war na ko mën a nit ñi dëgg la sëy ki mat a sëyal te bari alal te la mu fa am amoo ko sa kër waajur mm-hmm. ñu si baree ba da nga fay noppalu waaye sëy tëkkulu ay bi dëgg la góor day dëng mm-hmm. jigéen sëy si mm-hmm. wëlbiti ko jubbanti teg ko <laughs> eh. nga yor jigéen mu dëng nga wëlbituwaat teg ko ci yoon dëgg la ba def ko ndey muy sab xarit ba léegi lu mu la digal boo defee heure dëgg la Alaaji xam nga occasion bi waxtu wi dab nañu <laughs> waaye xeetu dëkkandoo yi bokk na ci dëgg la ki nga xam ne yaa yéen a bokk ëtt seen appartement taq xeetu dëkkandooy allaaj yi dafa am paquet boo xam ne dama koy bàyyi ba suba dem na ci kujjee ñi nga xam ne ñu ngiy wujje mhm. te bokk kër alaaji am na ñeen yoo xam dañuy wujje ba ba ci bàmmeel sax ñuy wujjeek ah, waa ki nga xam ne yow yaa ngiy wujje ba bàmmeel sax ngay wujjeek moom kooku suñu dëkk ma lay tabaski doo ko wax baal ma àq dañuy defante di defante di defante ba nga dee ñuy defanteeg sa bàmmeel di defanteeg say sët ak say doom kon mhm. kooku lii ñu dëkkmal di nga doo xalaatoo sax ne ko baal ma àq te gis nga mami si liggéey bëri na Mhm. toll nañu mujj jamono ñun ñu séentu ne dee du tàggoo kon loolu xam naa ne ay paquet la alaaji yoo xam ne dañ koy bàyyi ba suba ci kàttanu yàlla ñu tijju ko Mame Astou Sissoko Banna mhm. Sakaliba sama rak sama xarit am naa mbégte lool lool lool lool ci nga teew fii ñu nuyu waa Queen Fadima sama yaay ah tan Fadima ñu ngi koy nuyu ak Père Badji <laughs> ak Koura ma nekk ca France kon tàggul askan wi tàggul waaw <laughs> li may wax toujours rek euh, maa ngi tàggu waa Sénégal mm. di ne Papa Ndiaye Lo moom école la war a ubbi sax. Ah, laaju jamono jamono jii ñu toll. waaw yi yu mel ni mag yi ñii dafa baax. dëgg la yedd nit yi. fàttaliku leen parce que li ñuy wax yàlla sonnul. nit yi ñoo sonn. dëgg la bu ñu jugee foofu man damay gërëm samay waajur. dëgg mënuma leen fay dégg dëgg la sama papa ak sama yaay. dëgg la su ma siy wax sax sama xol dafay. wallaay wallaay ko ban moo tax bugguma ci sore torop di gërëm samay xarit. Mm-hmm. association femme vision future waaw bi nga xam yalla mo def rek ñu bëggal ma ngir yalla ak yonenté bi du dara luma ma leen defal wala luma ma leen may di gëreum sama sama bu damay ru sax di wax emploi ñi may liggéeyal di di di di di di gëreum di gëreum ñëpp daal sama ñëkke yi sama wujju wujj goy yi kuma buma limé ma daal damay joom njabot gi yëpp waaw ma ngi gëreum njabot gi yëpp yëpp di balu ñëpp ak ci tabaski bi waaye na nga nuyu ayda Amane bala ngay dem waaw waaw ayda Amane ayda <laughs> Amane nag moom beneen affaire la kooku bokk nuyuwul boobu après leneen boo leen suivre maa ngi leen di nuyu daal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ak sama mbokk taximaan yi fàttewu ma leen vraiment ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi maa ngi leen di nuyu jërëjëf waay merci beaucoup di la ñaanal la li ngay liggéey bu ci ordonnance génn amiin amiin amiin boo tëddee nelawal amiin booy def lu baax yàlla lay arbitré te yàlla ku mu nga daal wallaay wallaay ndeysaan surtout jiitu na la fi ngir jëf ju rafet wallaay te Cheikh Abdoulaat sama sang bu tedd bu baax ba daan na wax ne foo dem bul wane sa bopp boo fa yàggee ku la xam fekk la wallaay kon ku la xam jiitu na la yàlla na sax amin amin allah siyaare bu baax nee na Njaay nekk ca Mbàkke bal madame Mbaye ak Serigne Abdourahmane Fall ci la ak nag ki nga xam ne ki mooy Cheikh Sidé Babou. ndeysaan jaay bi. ndeysaan dëgg la siyaare bu baax ak soxna umu soxnaam. Mhm. Eh, di siyaare nag bu baax tubaarkàlla nag sama xarit. di sama sëriñ di sama lépp. ndeysaan mhm. sëriñ Baara Are Duba Lees. Mhm. kooku day ay soxnaam boo demee ñoom kenn ku ne lam la yeewal tubaarkàlla. ndeysaan macha allah soxna boo ko yërëmee lom bokk ak moom. di siyaare bu baax nag tubaarkàlla ajaratu Leena Fall Diagne ak sama ministre bi nga xam ne leen Mbaye Ndiaye. ndeysaan ak ki nga xam waaw waaw ajaratu ñaañu tudd ku dul fàtte démb. ndeysaan di siyaare bu baax nag ay Aysatu Li di siyaare ba baax tam ay satu Kase di madame euh, Yum di ñaanal nag soxna Déggan euh, sama xar di sama lépp. ndeysaan Serigne Fallou Galas Mbacke Maane. wallaay wallaay ndeysaan ak Mamadou Seck nag El Hadj Mamadou Seck. ndeysaan visité mm-hmm. ki nga xam ne ci TFM rek la bëgg. ndeysaan kenn jiitu ko fi. Mm-hmm. di ko ko jàmm ak sama docteur bu ñëw. wallaay may tëjee nag. Mm-hmm. maa ngi tëjee ba. Mm. Amadou Ndiaye ne ci Conakry. ndeysaan ak soxnaam su baax aji ngoom. wallaay wallaay. waaw di jàll nag bu baax a baax nag sama ambassadeur. ndeysaan. du ma ko fàtte mukk. jërëjëf yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin amiin alaaji Pape Sakho. amiin wax naa sa yóbbante soxna Digeen su meer. jërëjëf alaaji yéene jàmm. ndeysaan. Euh, Mouhamed Niass mu bàyyi Ibrahima Niass selew na. macha allah yal na sa teraanga yokku. amiin alaaji maa ngi lay ñaanal bu baax madame Gumbala Aminata Tall nag sunu doom. ba suba ba suba ak jàmm ak madame Seck xaritam di soxna ambassadeur bi macha allah allah ji li duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li lancé na dafa war a bàyyi di wax sama nopp bi nay na lay utal xolal na la utal horaire moo koy dama koy parce que lancé na waxtu wi su jotee ni may def sama boo dëgg may lee feet waaw ñi lay déglu te bëgg see jëriñu. ñu ah. dëgg la leen di may ba dàggi leen. laasana sax doo ko may xar yow doo ko may xar. laasana moom am na xar. Ah. am na xar moom. <laughs> daal day day xale ñoom ñëpp am na ñoo dañuy xale yaru. <laughs> lool dama ne liggéey kaar lool alaaji lool lool lool lool. Ndeye ah, Ndeye Aline Fall sama doom Ndeye Fatou Aline Fall borom kaloom. ah borom kaloom bind bi ci kaloom Fall. bind bi ci benn baat benn baat boo xëy rek balaa wax di yéen <laughs> alaaji delluwaat rek fa tabaarakàlla macha allah di ziyarat kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi. di sàkku ci ñoom ñaan waaye dellu di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yan na yàlla ñoo di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaji di bàyyi xel bu baax a baax a baax maam Murit. mi nga xamante ne ma nga ca Thiès Bambara ñu ngi koy nuyu ah di soxna Maada Thiam nekk ca Thiès Bambara ah di yaay ci may ci may primavera may mun a primavera ñu ngi koy nuyu di nuyu Adja Yande Fatou Bakalla macha allah alaaji Ibrahima Ba nag ma nga ca DS Couture ca centenaire foofu ca jaara Sane Ibrahima Ba sama doom la bu ma bëgg bëgg bëgg bëgg alaaji dafa fekk ne li duuf ci nag yëpp xajandoo ci cin li Mariane Mariane moom Serigne Yilim Cheikh Amadou Fadal Mbacké ndeysaan Mendi ndeysaan mooy njaagoom Cheikh Amadou Fadel Mbacke bi jox naa la ko téléphone dem ndax mbégte ndeysaan tubaarkalla ndeysaan sëriñ yi lay nooyee Cheikh Amadou Fadel Mbacke la bëgg macha allah Paris la nekk dëgg bu muy jaam waaye ñibbisi macha allah macha allah ñu ngi koy nuyu allah ji di nuyu fan su bu tudd Ramata Thioub ndeysaan Ramata Thioub fans la ñu koy nuyu diko sangal bu baakha baax alaaji di remercier bu baakha baax mami ah kontaan nañu di remercier aji Diop ah, rue 25 angle 22 mi nga xamné ne moo habillé di jay cuub yu ah di remercier bu baakha baax tamit euh, Anta ma nekk ca salon ana ñu koy nuyu diko sangal mom tamit di len jox rendez-vous suba ci kàttanu yalla ci benen émission wareef yalla suñu borom bi def dégg ak topp ci barke Seydina Mohamed sallalahu alayhi wasallam, te yàlla bu kenn manqué yalla bu kenn manqué li ci barke alquran al karim جرينير الجف